tey jilee euh, yëglekaay yi li ñu xëyee ñu ànd ceeg euh, Cheikh Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu wér euh, soxna maa ngi lay fay am mbégte ak contentement fay sama naataango yi nga xam ne. ñoom ñoo nekk ci plateau bi nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média aywa ñu door. Mm, ayca Cheikh ñu tàmbali ak l'observateur. l'observateur dikkaat na bu baax a baax ci lépp lu ñeel dundu gu cher gi euh, fii ci réew bu euh, Sénégal ak itam li nga xam ne nag euh, moom moo di mbirum luwaay yi yokkute yi nga xam ne moom la ñu ci nemmeeku téeméer boo jël mu toll ci fanweer ak juróom ñett itam lañ ci rek daal di nemmeeku lépp lu soxol recommandation yi ñeel waxtaan wi nga xam nag biral nañu ko mu ñeel wàññiteeg yi. bi maanaam njëg li euh, benn fan ci weeru janvier atum 2023 door lu ni mel jàppal leneen euh, ci loo xamante ni itam daal nañ koy waxtaanee mu soxal njëgum dund gi ak itam fourniture scolaire yi yenn ci ay prestation yu euh, santé ñenn ci ñoo xamante nii seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi ñu dippee leen ay experts itam daal nañuy àddu ci wàll wi lépp lu ñel yenn ci ay kàddu yoo xamante ni Momar Ndaw bu seen daal dina koy yëkkati mu soxal nag mbirum bailleur yeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di courtier yi lépp itam ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 jàpp 3 ah, bu l'observateur l'observateur leneen ci loo xamante nii daal na koy xëyee mu ñeel ah, mbirum ah, affaire euh, star euh, industrie euh, voyage à nebe sur les lieux de l'explosion qui a fait lu sept morts maanaam juróom ñaari doomi aadama ci la ñàkk seen bakken lenn ci ay témoignages yoo xamante ni nag bàyyeekoo na ci chef de village bi ak itam benn wëyjur jàppale nag ki nga xam ne moom moo di patron bu boobulee usine nag daal dinay amal ab waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi lépp itam mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur l'observateur ak itam langue politique bi fii ci bu Sénégal mi ngi ci page 4 moom Aminata Touré wi nga xam ne mi ngi wëyal bu baax a baax xeex bi ñeel troisième mandat ak itam yenn ci ay poste yoo xamante ni jege naale euh, njiit bu réew bi euh, mi ngi koy jëmmal naka noonu itam la mu fas yéene jëmmal euh, ca assemblée nationale ginnaaw itam mënees nañoo wax ci li nga xam ne moom moo di wàllu caada ci page 9 bu ak lu brique ak itam entretien bi nga xam ne sekk nañ ko ñoom itam ci yéen kaay nit nittali nañ ci loo xamante ni nag mënuñu ko mësuñu ko nit li nittali fenn mënees na ko liir ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur mbirum merci itam daal na ciy dikkaat bu baax a baax moom itam dafa rek daal di faat wala boog daal di eh, dagg teppit nopp ak xaritam ginnaaw itam bi mu njortoo ni rek dañuy rek di eh, jaxasoo mbirum làmb itam dikkaat nañ ci bu baax a baax ci face to face yi nga xam ne eh, ni démb moom lañu nemmeeku ca Sorano suñu naataango Malick Thiandoum am ci taxawaay wu yaa dina ci dikkaat moom itam ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu pàcc wi wala bokk bu ñu waxtaanee lépp lu soxal wàllu làmb naata enquête enquête dikkaat bu baax a baax ci lépp lu soxal mbirum troisième mandat la doctrine du conseil constitutionnel xam nga ne nag li nga xam ne yëkkati yëkkatiwaat na kadd yi di mel bokk na ci kàddu yi nga xam ne moom Ismaïla Madior Fall di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon ci mim réew daal dina ko yëkkati mu ñeel kàddu yi nag ci week-end bile li nga xam ne nag moom moo di euh, lile euh, conseil constitutionnel clair dans ses euh, lu nu mel itam enquête daal nu koy xëy fësal leneen ci loo xamante ni xëy nu ko fësal bokk na ci mbirum Karim Wade ak itam ci la jamono taxawaay wi nga xam ne am na ko jëm ci langue politique bi ginnaaw enquête. ñu jàll ci le quotidien. ci le quotidien di bu baax a baax ci mimi ginnaaw itam taqalikoom ak Benno Bokk Yaakaar ci la jamono yokk na bu baax a baax li nga xam ne moom moo di cadence bi lépp lu bu loi mu ñeel limité li nga xam ne nag moom moo di nomination yu proche yu njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall. naata mu dem ci libération Cheikh. libération li mu tënk bari na ñu jàpp lenn bokk na ci usine structure en acier ak itam service lu toll ci ñaari doomi aadama daal di rek ñàkk seen bakkeen ginnaaw aw explosion d'une tribune jàppal ne lu ni mel na leen fanweeri fan ci weeru septembre bi xam ne nag moom la ñu euh, weesu moom Ousseynou Ciss ak itam ki nga xam ne moom moo di di Abdoulahat Jong ñoom itam daal nañu génn àddina kenn ki eh, juróom-ñaari fan ci weeru octobre kenn ki itam juróom-ñetti fan eh, ci weeru octobre lépp lu eh, soxal itam lañ ci gën a lañ bët naata mënees na ko liir ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur yenn ci ay gaañu gaañu yoo xamante ni ay techniciens yi daal nañ koy am lépp itam daal nañ koy tënk leneen ci loo xamante ni itam daal nañ ci àddu bokk na ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Bassirou Mbaye ku mooy wul Imam Mor Mbaye ak itam ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo di ay ñu ñoom mënees nañ leen a tëj ci li nga xam ne euh, moom moo di seen euh, giirug dund ca diwaan bu Kër Masaar benn soxna soo xamante ni taxu ko mat maanaam ci wàllu xel moom itam ñenn ci ay samba booy ñoom dañ koo jëloon rek di ko sàkku saa su nekk naka noonu itam daal nañ leen di jàpp ci suufu pont bu Kër Masaar gendarmerie daal di amal lu ni mel naata ginnaaw libération ñu wutali beneen ab yéene kaay tey moom mile nag ci la jamono mël na bu baax a baax njiit bu réew mi ak itam ki nga xam ne nag moom moo di njabootam moom Mimi Touré jàpp ne nag lépp loo xamante ni eh, ñeelul wala bokk yellul moom njiit mu réew mi mu daal di koy def dina ci teg tànkam wala bokk mu teg ci concam ngir gën a xamaleeg askan wi waaye itam gindi bu baax a baax li nga xam ne eh, moom moo di eh, seen ak xel lépp lu ñeel coow la nga xam ne moom moo am ca poste jamono yi nag ñoom daal ni ñuy jébbal li nga xam ne moom moo di seeni ay bëgg-bëgg njiit bu réew bu Sénégal wala bokk bokk daal dinañu yëkkati li nga xam ne nag moom moo leen métti jëm ci li nga xam ne nag moom moo di payoor yi moo xam à la traite yow ñu jàll ci leneen muy Walf Quotidien bu baax a baax ci lu uh, soxal uh, mbirum uh, Aminata Touré mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di la mu bëgg a wala boog la mu bëgg a teg ci assemblée nationale mu li nga xam ne nag day aaye yenn ci ay nomination yu bokk ci njabootuk ki nga xam ne moom moo di njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall délivrance wu visa Guy Marius Sagna ak itam ñoñoom menace d'assiéger l'ambassade de France lu ni mel mënees na ko lire ci li nga xam ne nag moom moo di page page 2 bu Walf Quotidien ginnaaw Walf Quotidien ñu wutali beneen ab yéenekaay les échos les bu baax baax ci lu ñeel rapport wu ñetteel bi trimestre euh, bu euh, commission yu euh, données personnelles jàppal na nag SETER ak itam Sonatel Total Énergie ba ci sax Brioche Dorée épinglé ñoom itam xam nga rek le ñu leen ci rek daal di diir lépp lu ñeel diffusion wu données personnelles Kocc traîne devant le procureur ak itam li nga xam ne moom moo di ca cybercriminalité lu nu mel ci euh, page 4 bu Les Échos naata. Mm, bés bi le jour moom lu mu xëyee. bés bi le jour li mu xëyee bokk na ci mbirum Aminata Touré waaye itam mënees nañ cee jukki leneen mu ñeel Air Sénégal suspend sa ligne Afrique centrale euh, plan de vol ajusté lu ni mel rek daal di xëy fësal bés bi le jour ci li nga xam ne euh, moom moo di page 5 ci loolee lañ ko rek mën a lire braquage loo xamante ni moom la ñu nemmeeku benn commerçant boo xamante ni dañ ko rek daal di faat ca diwaan bu Linguère dañ ko faram-fàccee léegi léegi incha allah. ci kanam incha allah dund gi ak laas. dund gi ak laas dikkaat na ci bu baax a baax lépp lu ñeel itam njeexital yi nga xam ne am na ko njëkk yu cher yi nga xam ne itam uh, moom la ñu ci uh, nemmeeku mu mel ni itam uh, na ci dikkaat bu baax a baax naata. Vox Populi moom. Vox Populi dikkaat ci kii nga xam ne itam daal nay jàngat li nga xam ne nag moom moo di tolluwaay fii ci réew bu Sénégal moo jëm ci langue politique bi ak itam jafe-jafe askan wi moom ki nga xam ne nag moom moo di Amadou Ka professeur bile dikkaat ci li nga xam ne nag moom moo di les bonnes feuilles euh, bu euh, brûlot lu ni mel la rek la daal di euh, dippee bonnes feuilles xel day dem ci Ibou Diouf lim ñuy baaxee saa su nekk ci li nga xam ne nag moom moo di suñu ay xibaar braquage ca diwaan bu Linguère maa ngi koy wax sànq benn commerçant boo xamante ni moom la ñu daal di faat ñetti doomi aadama am ci ay gaañu gaañu yenn ci aw som maanaam ay koppar yu takku yoo xamante ni itam daal nañ koy téq ñu dem ci source A. source A dikkaat bu baax a baax euh, ci lii léegi nga xam ne nag euh, moom la ñu euh, dippee ca li nga xam ne moom moo xew defkatu ñaaw ñaawteef yi nga xam ne itam ñoom ñoo rek daal di song ki léegi nga xam ne nag day yëngu ci wàllu njënd jaay moom Elimane ja wi nga xam ne nag dañu ko rek daal di faat ca village bu Diagali ak itam li nga xam ne nag loolu lañ ko daal di sox lu ni mel itam am na bi 20 jotee soxna naata fàttali itam dikkaat nañ bu baax a baax euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, nataal mbirum Sonko ak itam ki nga xam ne moom moo di Karim a ah, dikkaat a baax. Mm, le témoin mu ñeel ba li nga xam ne nag moom moo di troisième mandat la bataille pour 2024 déjà ouverte xam nga ne docteur Cheikh Kanté yenn ci ay kaddu yoo xamante ni daal dina ko yëkkati mu ñeel wàll wi lenn ci loo xamante ni mënees na koo jukki ci li nga xam ne nag moom la àddu nous devons vont euh, convaincre le président Macky Sall un deuxième mandat de cinq ans en bu ñu sukkandikoo ci euh, jëruñ jile yi nga xam ne euh, moom moo yëkkati yooyu les kàddu moom Cheikh Kanté. ñu jàll ci Sud Quotidien. Sud Quotidien la ñuy jàll di kaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu dysfonctionnement bu protection civile fii ci réew bu Sénégal ci li mu dikkaat bari na bokk na ci yenn ci ay bâtiment yoo xamante ni dañuy faral di daanu accident yi nga xam ne itam dañu koy nemmeeku ci barabu liggéeykaay yi sax yenn ci ay drame yu euh, circulation bi lépp itam daal nañ ci dikkaat bu baax a baax ñaareelu pàcc yu ñu gën a faram-fàccee lu ni mel naata ginnaaw Sud Quotidien ñu wutale beneen ab yéenekaay mm, tàggat yaram ak record euh, tàggat yaram ak record football ci wàllu euh, jigéen ñi mondial 2023 mu mel itam gaynde yi daañu xam ana ñan lañ fas yéene janool ci wàllu yi boobule compétition ni ki àjjuma wile lañ koy rek daal di xam Saliou Serigne Saliou Dia coach bu u yi fii ci réew bu Sénégal maintenant l'objectif objectif et de bien préparer li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, euh, na koy yëkkati record daal di koy faram-fàccee ci li nga xam ne moom moo di page 7 Ligue des champions AS Milan Chelsea ñi ngi tey jëlee lañ ko rek mën a xaar bu 19 jotee maanaam juróom-ñaari waxtu ci mim réew revanche wala boog confirmation lépp lu mu ci mënti doon incha allah lu teew xam jarta yàkkamti ngoon dees na ci mën a xam dara mu doon aw laaj woo xamante ni record daal na koy samp ginnaaw record ñu dikkaat ak ci stade. Mhm. li mu xëyee ah, bokk na ci ah, Paris Saint-Germain Real City vise déjà les huitièmes lu ni rek la ko rek daal di xëy fësal mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di de des champions ah, quatrième journée de ce mardi. ñu jeexale ak sunu lamb sunu lamb dikkaat bu baax a baax mbirum Papa ak itam Siteu juróom benn fan ci weeru novembre bi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal ana kan mooy profité ci ñoom ñaar ci lu jëm ci wàllu xeex ak yeneen yu ni xeetoo daal nañ la samp aw laaj. ngir rek eh, daal di ci am ak tontu ñàkkul ne Malick mënees na ci addu Jibril Kandji ancien boxeur ah, Papa Sow mooy eh, meilleur que Siteu lu ni mel ay kaddu la yoo xamante ni itam moom la rek daal di eh, fësal xam ngeen ne moom doomu Parcelles Assainies wile moom mooy roi des arènes waaye jàpp ne toog na ci ñetti at yoo xamante ni bëriwul moo du va-t-il libérer la lutte cette saison beneen ab laaj boo xamante ni daal nay samp mu ñeel ki nga xam ne nag moom moo di. Euh, Modou Lo euh, bu euh, Parcelles Assainies ponk wu njëkk wala boog pàcc wu njëkk wi nga xam ne nag moom moo gën a fësal ci li yéen kaay yi xëy fësal ki tey ci mardi bi ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën ko faram-fàccee baaxe ko mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média. incha allah ci kanam lay doon Cheikh. merci beaucoup laataa ngay dem nga indil ñu benn yëglekaay bu Mimi Touré nekk ndax daanaka ñu bari ci lañ xëyee tey jile voilà Alaaji Malick Mimi ture gis nga ko ak proposition de loi bi mu ne da koy yóbbu ci assemblée ngir wàññi doole ak euh, fonction ak responsabilité yi ñuy jagleel ay jege ñaale njiitu réew mi ñu bëri jàpp ni nag dafa giifagul ba léegi ci maire euh, présidence assemblée nationale ndax loolu sax la joxe ni ab raison euh, mu démissionné ci groupe parlementaire boobule bu benn bokk yaakaar ndax dafa jàpp ni mérite dañ koo jël tegee ko fële di indi mbirum xaritoo mbirum mbokk ak mbirum mbokka mbokk daal jërëjëf soxna naata mel na ni li sabab Euh, mortal combat bi wala mi mi tey euh, maanaam esprit va bi nga xam ne indi na ko lépp mi ngi jóge ci euh, tabuk biñ ko ñàkk a ci bopp assemblée nationale ginnaaw bi nga xamee ni nekkoon na. tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar wër Sénégal def campagne bu euh, am solo ñu ñëw ba ca cëppaandaw la ñu jël keneen teg ko ci bopp assemblée bi boobu ba léegi nag mu mel ni que Mimi dafa jóg rek fas yéene jàmmaarloo ak ñi nga xam ni ñoo di waa mouvance présidentielle bi wax nga ko léegi la ca jiitu mooy euh, mu jóge ci groupe parlementaire bi daal di bokk dem ni non inscrit la boobu ba léegi également ñu gis ni ci côté euh, ñu nekk ci mouvance présidentielle bi ngi commencé. Euh, ruumandaat naka la ñuy def ba réduire mi à néant maanaam fexe sax nangu euh, sax mandat mm. am na ñu nga xam ne euh, tey jàpp nañu ni loolu teguwul ci yoon man mi sax ci ñooñu laa bokk parce que aussi moom député la du APR moom moo ko tax a nekk député li ko tax a nekk député moo di ni dafa bokk ci coalition bu ñu tuddee benn Bokk Yaakaar te am na ay antécédents yu nga xam ne amoon na fi jurisprudence bu fi amoon ci wàllu euh, mandat de député est-ce que mun nañu teggi mandat de député ci noonu loolu je pense que guerre la bu nga xamante ni man ànduma ci beneen bi ci des moo di ni proposition de loi bi Mimi di def euh, dafa xaw a doy waar parce que man li tax également foofu ànduma ak Mimi moo di ni tey ak koo mënti doon nga nekk sénégalais nga bokk ak président nga bañ a bokk ak président moo ci am li am solo mooy citoyen nga sénégalais nga ndax am nga compétence wala amuloo compétence la ñu lay dénk bu fekkee nii am nga compétence yi ñu dénk la ko nga doxal ko boo ko doxalee teg ko ci yoon xayrun boo ko tegul ci yoon yoon dal ci sa kaw. mais xañ na loolu Alaaji Malick loolu la parce que yëf yi dafa ëpp euh, ndax jege ñaari que ça soit président que ça soit soxnaam ak ñeneen ak ñeneen bëri nañ torop ci entourage am yi te ñu bëri dañoo jàpp ni li liñ leen dénk mënuñu ci tous waaye dañ leen fay bàyyi parce que tout simplement mbokk président lañ wala mbokk première dame ainsi de suite. man damay bañ euh, soxna naata ñu créer précédent bu nga xam ne. dafay hmm. des ci analu. Euh, Wade ba mu nekkee waxaloon nañ ko ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu indi proposition de loi bu mel noonu man daal dama jàpp ni ak koo mënti doon doon sénégalais am compétence nga bokk ak président nga ñàkk bokk ak président bu ñu la joxee poste te nga mérité ko na ko doxal boo fekkee ne doxaloo ko tegoo ko ci yoon yoon dal ci sa kaw beneen bi ci des moo di ni li tax d'accorduma aussi ci posture euh, Mimi Touré elle était yàgg na ci waaw ma nga ca woon nekk premier ministre waxul nekk envoyé spécial du président de la république waxul nekk président conseil économique social environnemental waxul est-ce que tey parce que ñële dañ ko frustré ñële dañ ko déclarer la guerre mu déclarer leen la guerre dina tax tey mu dem yóbbu proposition de loi boobu. ci assemblée nationale euh. non c'est de c'est guerre mais est-ce que tey combat personnel u Mimi moom la war a yóbbu assemblée nationale moi je suis pas d'accord avec elle quand je suis là c'est bon quand je ne suis pas dedans c'est pas bon man pratique boobu laa d'accordul nit ki bu fekkee ne da gis lu nga xam ni euh, teguwul ci yoon nga bokk ci nguur gi wala nga ñàkk ci bokk da nga ko war a dénoncer mm-hmm. donc loolu moom mooy dëgg mais doo dem ba nga xam ni frustré nañ la sa guerre personnelle nga transféré ko ci biir assemblée nationale mm. waaw bokkatuma ci naa ci xëpp suuf euh, bokkoon naa ci baax na bokkatuma ci baaxatul man d'accord ma si loolu donc on est des citoyen bu mu mënti doon nga ak religion boo mënti bokk ak ethnie boo mënti bokk ak xeet boo mënti bokk bu fekkee ne am nga compétence am nga droit ñu nommer la nga doxal boo doxalul nag yoon dal sa kaw. ah oui mais Marcel euh, li euh, Malick Thiandoum di wax ne genre euh, combat personnel la xañ na ñeneen ñi tam dañ cee jis seen bopp parce que loo xam ne nit ñi yàgg nañ ko dénoncer la bien vrai que mosuñoo proposer loi bu ni mel. Mm-hmm. mais lii xañ na xaw a tey xel nit ñi tuuti mooy yàgg naa nekk ci ñoom. mosu koo wax mu xaar ba génn ci door koo wax et puis euh, elle n'est pas la seule ah bëri nañu Alaaji Malick bëri nañ xam ne dañuy ànd ak président de la République mhm. dañuy gis lu leen naqari waaye duñ ko mhm. euh, euh, yu mel noonu war nañ mën a ànd mhm. parce que comme niñ ko waxee dañ ko doon dañ ko doon combattre dañ ko doon faral di di dénoncer jamono Abdoulaye Wade mais force est de constater c'est vrai que depuis que bu Macky ñëwee moom il nous a fait découvrir guillemets plus de membres de sa famille et de Absolument sa belle famille que, que, que, que maître que donc euh, loolu loolu moo tee moo tee xel mais bon je suis quand même un petit peu en phase avec Malick parce que dafa mel ni rek euh, Mimi Touré day day profité benn situation personnelle euh, pour mën a fexe ba yóbbu ko ci ci assemblée assemblée nationale pour pour mën ko xeex parce que Euh, c'est tout a commencé euh, gannaaw ba ñu ko falulee présidente assemblée nationale euh, ba ñu ba ñu ba ñu tànnee ki nga xamante ne moom mooy docteur Mame Diop donc ba mu nekk Amadou Mame Diop donc ki ki nekk jamono président assemblée nationale te ñuy wax na ne moom il a des liens assez étroits ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiitu réew mi ak ak première dame di di Marième Faye Sall donc mm, effectivement on attend d'un député mu am ay proposition de loi yoo xamante ne c'est pour le collectif pour le peuple pour le peuple sénégalais bi nga xamante ne euh, moom moo ko moom moo ko teg fi mu fi mu nekk quoi qu'on quoi qu'on dise d'autant plus qu'elle a annoncé juste ba muy jël décision boobu nañ que day génn groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar euh, que day euh, day day nar a nekk député pour défendre les intérêts donc du peuple sénégalais c'est ce qu'elle avait c'est dit maintenant c'est vrai que mën nañ jàpp ne ne li muy défendre ni c'est c'est pour le peuple sénégalais mm-hmm. peut-être c'est vrai mais effectivement que ku ci nekk tamit war na selon les compétences selon sans sans distinction aucune mm-hmm. ci appartenance bu mënti doon que bu fekkee ne compétence yaa ngi fi euh, ak mën-mën yeeg donc ñu mën ko teg ci euh, ci yenn rôle yi mu mën ko mu mën ko mener à bien mais on verra donc là où cette proposition mm-hmm. de loi va aboutir parce qu'on ah, rappelle que li amoon assemblée nationale amatul léegi ndaxte majorité absolue euh, amatul de la part de du du parti au pouvoir et pour le moment sax am ay spécialistes foofu laay mm-hmm. l'a vu dans dans le journal Les Échos nee na techniquement exposé motif remplir respectewul normes yi donc euh, on verra ce que ça va donner techniquement justement. Mm, euh, Ibou Diouf cette proposition venant d'une autre personne est-ce que doon na am peut-être effet bi mu am ni ni mu jógee ci Aminata Touré. waaw euh, juste pour dire que c'est une guerre mm. guerre la te guerre bo fay. tous les coups sont permis. voilà c'est une guerre et puis c'est légitime arme yi utiliser quoi l'on puisse dire c'est légitime euh, c'est la constitution moo ko may. Euh, nañu ne bu fa nekkoon dans le gouvernement il n'allait pas avoir cette posture mais rappelons que président Macky Sall bu fekkoonte ne il était au sein du PDS mm -hmm. il mhm. n'allait jamais devenir président de la République mm -hmm. donc li ñu ko xeex moo tax mu génn créer parti c'est à l'image de Mimi Touré également de prendre cette posture parce que euh, dafa jàpp ne dañ ko bëgg a donc je pense que fi mu nekk nii ku mhm. ci nekk li ñuy wax kuy dem marché li nga li ne sa poos nga yóbbu hmm. arme yi que législation bi may li ko code yi nga xamante ne tënk texte yi nekk au niveau de l'Assemblée hmm. foofu la mën a voilà donc euh, observateurs yi hmm. ils savent nettement que Mimi bu deful ni d'ici peu il va plus exister d'autant plus que fi mu nii ñu ngi koy fexeel pour écarter ko donc il faut mu utiliser li nga xamante ne moom la am. à sa disposition pour mener le combat. Mm. donc je pense que c'est légitime. fi et puis c'est c'est de bonne guerre. on a vu que dans certaines institutions tu peux pas être là-bas sa borom kër ne fa wala sa doom. Mm. donc pourquoi pas yooyu ñu encadrer ko. non non may ma ma jeexal Cheikh. donc donc depuis. am na. mais ça ne veut pas dire que am na dañuy évoluer donc la xewoon 1960 on l'a vu avec le président Abdou Diouf il y avait son frère qui était ministre Maguette Diouf euh, gis nañ ko ak Abdoulaye Wade son son propre fils ministre et super ministre même donc ça ne veut pas dire que am na que dafay continuer Malick l'a dit nous sommes tous des citoyens. ku mhm. am. Euh, compétence yi pour diriger un poste de responsabilité tu le mais euh, fu problème bi nekk tu verras forcément des gens yoo xam ne peut-être dañ leen fa teg pour teg leen fa rek. mais mm. est-ce qu'ils ont réellement. les compétences ils sont plus ah, ah. méritants que les autres. oui mm, euh, man li Malick wax rek mën naa laay wax parce que euh, poste yu mu occupé durant que mu nekk ci benn bokk yaakaar bari na donc je vois pas l'intérêt mu xaar ba tey bëgg a sulli yoo xamante ne nii wala soit bëgg seetlu taxaw si yoo xamante ne nii donc mënoon na ko souligner bu yàgg donte àndatuma ak njiit bu Sénégal donc damay en phase ak moom. ah man ah, côté boobu côté boobu seulement que la la la la d' accord. voilà euh, peut être sénégalais ñoom également même avis lañ am par rapport à ça. Euh, merci beaucoup euh, dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.